directeur nuyu nañu. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. waaw mais tey lan moo waral teewaay. waaw ñëwoon suñu frère suñu xarit suñu lépp donc bu amee naqar war a nekk bu amee lu bu bànneex ñu nekk fi bu amee naqar yu ñëw mu perte jabaram ñëw pour jaale ko rek. donc loolu moo ñu fi woon donc nekk nit ku baax koo xam ne ne moom vraiment lépp lu Sénégal ñëpp a war a ñëw jaale si ko donc jërëjëf. wala ziar naa. waaw nangu si baax. waaw tey moom lan moo waral ah teewaay bi kay kenn ko laaj parce que balaa ma wax dara damay sànni yàlla di jaale Aziz parce que boobu léegi maa ngi doog xam nga man tam sama papa dafa gaañu maa ngi woon reefan dem laa ñëw fekk tey bi semaine bi delsi foog ma ñëw quoi parce que man ku ma xam-xam ak waa Kër Baye Allé seen grand frère mm, mm, Massata Allé Ndiaye ma ma ma Massata Allé Ndiaye keroog bi sam papa nelawee dafa ñëw reefan jaale ma kon tey maa ngi jaale Asi di jaale Masata Ndiaye di jaale Baye Abdou di jaale waa kër Baye Aliou Ndiaye man fii laa bokk man ak waa kër Baye Aliou Ndiaye ñoo baay